ak ñi mu àndal ñëpp ci xeex bi nga xam ni àdduna bi yëpp dañ ci dañ ko dañoo jànkonteel ak moom te yàlla dogal feebar bi dugg Sénégal depuis le 2 mars 2020 li leen yitteel tey mooy aar Sénégal ci wàllu faj li leen yitteel tey mooy fexe bokk feebar bi dal ñu mën la faj ñu ngi leen di féliciter mook équipe bi mu àndal di rafetlu résultat yi nga xam ne am nañ ko adduna bi yëpp di ko rafetloo politique bi nga xam ni ak mesure yi nga xam ni président Macky Sall jël na ko ba tax sa tey Sénégal ci réew yi nga xam ni li ñuy def pour xeex feebar bi Sénégal doon na réew boo xam ni amante na ci ndam bi feebar bi duggee Sénégal président xam ni feebar bi ginnaaw nit ñi mu mën a lor dina yàq lu bari ci koom-koom bi mën na sax yàq lu bari ci réew mi loolu moo tax mu defoon benn plan boo xam ni plan bu ñuy woowee plan d'urgence la def ci plan boobu junni milliards junni milliards yooyu li mu war a faj bari na junni milliards yooyu war nañ cee jàppale santé junni milliards yooyu dinañ ci jàppale koom-koom bi ndax waxtu wi ñu toll koom-koom bi dina soox lool junni milliards yooyu dinañ ci jàppale loolu la président bëgg ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu ñu gën leen di woowee ci ay ménages vulnérables loolu moo tax yeneen ministères yi ku ci nekk yaa ngi doxal politique bi nga xam ni président définir na ko ci fànn boobu président jàpp ni sunu mbokk compatriotes yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te ñu tuddee leen quinzième région ñu am nag solo lool ci koom-koomu réew mi. ndax at yi wees boo jëlee réew mi alal ji mu am yépp daanaka téeméer boo jël fukk yi mi ngi doon jógee bitim réew kon ña nga xam ne dañoo nekk bitim réew am nañu solo lool ci koom-koomu Sénégal moo tax président jëloon ndigal jëloon dogal jox ndigal ministère des affaires étrangères génnee ci alal jooju fukki milliards ak euh, genn wàll pour ñu dimbali ñooñu xam nañ ni loolu ñëpp mënuñu cee jot ndax am na ñoo xam ni dëgg-dëgg du leen ci mën a boole mooy képp koo xam ni yaa ngi ci situation boo xam ni réew ma nga nekk ma ngi lay jàppale képp koo xam ni yaa ngi ci situation boo xam ne la nga dese wala la nga yor ci alal mayu la nga jot ci lii doo ci jot ñi ñi nga xam ni président bëgg na ñu jot ci mooy étudiants yi nga xam ni amuñu bourse te doon def ay liggéey yu sew yoo xam ne mënatuñ ko ñi nga xam ne ñu ngi woon bitim réew nekk ci situation de vulnérabilité moo xam am nañu këyit wala amuñu këyit doon nekk ay commerçant yoo xam ni surtout vendeur à la sauvette nekkoon ci ci ci ci ci ci dëkk yi rawatina dëkk yu mag yi ñooñu nga xam ne tey mënuñoo génn mënuñoo dem fenn mënatuñuy dimbali seen njaboot gi ñu bàyyi Sénégal ñooñu la président jàpp ne war nañ leen dimbali fii ñu nekk ginnaaw bi nga xam ni li nga koy xam ne ñu ngi koy def ci biir réew mi di dimbali famille yi néew doole incha allah ñooñu kenn du leen fàtte. bi xeex feebar bi nag duggee ci af monde bi ministère des affaires étrangères amoon na benn comité de crise ndax doomu Sénégal dañoo nekk ci àdduna bi yépp feebar bi fi mu jógee ci Chine. amoon nañ fa fukki étudiants ak ñett ñu amoon benn comité de crise boo xam ni secrétaire d'État en charge de Sénégal de l'extérieur moo ko présidé woon di wax ak étudiants yi di wax ak parent wu étudiants yi ñu dimbali leen mesure yi nga xam ni jëlul nañ ko tey jii ñëpp war nañu rafetlu ni que mesures yooyu bokk na ci li sauvé Sénégal ndax réew yi nga xam ni doxawaloon nañu neneen gis nañu tey réew yooyu ci coono bi ñu nekk la ñu mën a wax ci loolu mooy gàcce ngaalaama président Macky Sall ci esprit bi nga xam ni amoon na ko donte yëf yi metti woon na lool mu jàpp war nañu dimbali foofu sénégalais yi dénk leen gouvernement chinois ñu jàppale leen ba kenn feebaru ci kenn loruwu ci. comité boobu la ñu mi ngi dox ba tey ñu dénk ko kon Moïse Sarr mu ciy liggéey ak cadre yi nekk ci ministère bi ak yenn responsable ministère bi. ma mën ci citer sama directeur de cabinet mën ci citer secretaire général mën ci citer directeur général des Sénégalais de l'extérieur ak yeneen responsable yi fa nekk comité boobu lañ ko laaj mooy na gaaw lañ ko laaj mooy nañ ko jëmale nañu defar mbir mi ci procédure yu gën a jub te nañ ko déconcentré décentraliser ko moo tax alal ji du des Sénégal incha allah ci fan yu néew Moïse dina fi ñëw wax leen réew mu nekk la fay dugg wax leen nit catégorie bu nekk mooy ñi ma lim léegi catégorie bu nekk ñaata lañ lay jox ñaata lañu ñu war a jox étudiants yi ñaata la ñu war a dimbale ñi nga xam ne dañoo nekko ci secteur informel te tey jii mënatuñu liggéey ñaata la ñuy dimbale ñi feebar ñaata la ñuy dimbale njaboot ñi nga xam ni dañoo feebar te liggéeyatuñu loolu yëpp incha allah dina fi ñëwaat ci fan yu néew wax ci ak communauté bi. ndax li ñu président sant mooy na yëf yi nañ ko doxal ci transparence na gaaw surtout mais aussi na ànd ak transparent région bu nekk lu ñu woowee juridiction ci ñun mooy réew wala groupe bu réew bi nga xam ne am nañ fa ambassadeur ambassadeur bi ci boppam mooy présider commission bi mais ci biir ambassade boo mënti gis nag am na ñoo xamante ni ñoom ñooy toppatoo les affaires consulaires muy consul généraux yi wala consul wala bu nekkee amuñu ko it ci dëkk ba ambassade ba am na koo xam ni mi ngi ci mooy yor responsabilité des affaires consulaires ñooñu ñëpp dañuy bokk ci commission bi. leneen li nga xam ne dinañ ko def mooy agent comptable bi mooy ñi nga xam ne ñoo day denc xaalis bi ñooñu aussi dinañ bokk ci commission bi député de la diaspora dinañ leen boole ci commission bi ak képp koo xam ni jàpp nañ ni sa teewaay ci commission bi dina jariñ askan bi jox nañu ndigal comité bi na lépp. pour mu leer lépp pour mu gaaw incha allah am na loo xam ne commencé nañ ko def depuis démb loolu nag mesure de soutien d'urgence la boo xam ni def nañ ko depuis démb ñu ngi exécuté benn dépense boo xam ni toll na ci un milliard yaakaar nañ ni tey wala gën baa tardé fii ak fin de semaine ambassade yi ak consulat yi dinañ ko jot séddale nañ leen ko loolu yëpp incha allah Moïse dina ñëw wax nañ ko fi defee yàlla nag dafa dogal. feebar bi am ay doomu Sénégal yu mu dal bitim réew am ci ñoo xam ni dañ ci wàññeeku ñuy jaale ci turu président Macky Sall ñooñu ñëpp seen i njaboot di leen jottali aussi njaalu gouvernement bi ak njaalu ministère des affaires étrangères amoon nañu nag aada koo xam ni danga nga wàññeekoo bitim réew moo xam say mbokk dañ lay andi moo xam ambassade bi da lay dimbali moo xam ministère bi dalay dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seen i néew fii ci Sénégal mais fii jamono bi toll tey recommandation yi nga xam ne jot nañ ko ci min OMS waxtaan yi nga xam ni am nañ ko ak autorités yi nga xam ni ñoom ñoo yor réew yooyu ak conseil yi nga xam ni sunu autorités yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo ci wàllu santé wax nañ ñu ko fi mu nekk nii ñooñu. mënuñu leen indi Sénégal li ñuy ñaan seen i mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ nag jox nañu ay instructions pour que suñu ambassades yi ak suñu consulat yi ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe ba ñu denc la ci anam yu dëppook yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi ñun wax nañu suñu consulat yi dëkk yi nga xam ni dafa jar. ñu jënd suuf si ñu leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah dinañ ko def ci nu mu gën a gaawee alal ji njëkk yóbbante daanaka loolu lay jariñ maintenant am na yeneen sénégalais yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar bu dul feebar bii nga xam ni tey jii moom moo sonal àdduna bi yëpp ñooñu. dinañu waxtaan ak docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen décès képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññee mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàppe ni da war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ni gouvernement bi daan na ko ci def wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñu mën a ñibbisi ñuy dool dellu di jaale mbokk ñooñu di mettitlu di naqarlu la nga xam ni dal na leen ndax ku sañoon bu sa mbokk wàññee ko nga defal ko la nga xam ni moom la la mujjee ñaan balaa muy génn àdduna wala nga defal ko yow li nga xam ni moom moo gën a dal sa xel mooy indi ko ci réew mi ndax nga mën fa dem di ko ziyaare waaye di ni àdduna bi bindoo tey ak danger yi nga xam ni am nañ ko risques yi nga xam ni am na ci àdduna bi ñu dem ba àdduna bi dem beeg dikk bi dañ ko taxawal ñu dem ba ci àdduna bi boo amee sa doom mbaa nga am sa way jur mu nekk ci bitim réew mënoo ci moom dara mënoo ko jëli mënoo ko fekki donte danga ko mën bu àdduna demee ba tollu foofu nañu nangu ni la àdduna bi laaj ndax réew mi yëpp mën a mucc loolu rek la gouvernement bi mën a def ci loolu la gouvernement bi taxaw moo tax ñuy ñaan sunu mbokk yooyu donte xam nañ ni metti na parce que ñaari naqar la mooy naqaru am ko wàññeeku ak naqaru la nga bëgg mënoo ko def nañu xam ne gouvernement bi mi ngi seen wet lépp luy ndimbal ñu mën ko dinañ ko def ci autorité diplomatique yooyu pour ñu mën leen denc denc bi gën a rafet am na ay cas yoo xam ni réussir nañ ko ci déjà Espagne ñuy dellu di jaale mbokk mi nga xam ni noppaloo na Espagne denc nañ ko fa ndax jullit la woon ci cimetière ci carré jullit yi fa nekk imaam taxawu na ko ba euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ñuy ñaan yàlla aussi ñi nga xam ne wàññeeku nañu ci yeneen réew yi nañ ñu dimbali topp ñu ci loolu ndax loolu mooy la nga xam ni dina leen jariñ ñoom fi ñu nekk ndax loolu mooy liy jariñ réew mi ndax réew mi tey li ñuy def yëpp mooy xeex ba préserver réew mi te réew àdduna yëpp ci loolu la ñu mànko ma leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen masawu salaamaaleykum wa rahmatullah